tey dama leen di woon sama quatre voitures favorites yi ma mos a jëndee Corée du Sud man la Baba Elite Marketing Pro comme ni ma koy waxee kenn jëndatu oto yu cher mais kenn toogatul 3 mois pour jot say oto numéro 4 bi ñu ngi am Kia K5 design bi c'est très joli ñu ngi la koy jëndee Corée ba Sénégal ci 4 millions 500 comme ñi am famille bëgg oto berline te bëgguñu dépenser xaalis bu bëri Kia K5 bi option bu baax la ndax ci biir dafa yaatu te bi c'est très moteur bi 4 cylindres la 1.7 ce qui veut dire oto bi di consommer am na essence am na gasoil souvent nag dafay am option LPG bi yooyu moom mënta dugg Sénégal ndax gaz bi mënu fa daw. si 7 secondes oto bi mën na jóge 0 dem ba 100 kilomètres à l'heure ce qui veut dire que moteur bi c'est très puissant. pour côté sécurité yow muy génn oto bi sa xel mën na dal ndax oto bi am na 9 airbag 9 airbag bu yooyu mooy protéger ñi ne si kanam ak si ginnaaw. ba maara day taale bu amoon yàlla mën na la musal bu baax a baax a baax. pour numéro 4 bi ñi ngi am Hyundai Tucson Hyundai Tucson sénégalais yi bëgg nañ ko bu baax a baax bii nii mën nañ la ko jëndal à 6 millions 400 ba Sénégal mooy prix oto bi commission bi ak chargement bi ba Sénégal. moteur bi 1.7 la 4 cylindres cela veut diir oto bi du consommer am na option essence wala gasoil mais option gasoil bi la ñuy gën a jënd ndax moo gën a yomb différence bi ak bu essence bi bëriwul ndax oto bi balaa ñu koy jënd dañ koy inspecté ba xam ne moteur bi bu baax la. intérieur bi c'est très spacieux te li ci gën a neex mooy bi am na 6 airbags côté sécurité amul luñ koy reproché. pour numéro 2 bi ñu ngi am Kia Sportage ñu ngi la ko jëndee ba Sénégal 6 millions bu ngeen xoolee sama catalogue am naa fa lu mot 5 disponible chargé naa ko depuis un mois ko bëgg mën naa la ko jaay sous douane. Kia Sportage moteur bi 1.6 la 4 cylindres ce qui veut dire que oto bi di consommer te li si gën a neex mooy design bi dafa naturel bu ngeen gisee rondeur oto bi da ngay barre vite fait intérieur bi c'est très spacieux oto bi dañ ko équipé avec les équipements de dernière génération navigation bi clim bi biir Corée du Sud boo gisee gaa yu bëri dañ koy dawal ndax oto bi dafa am confort mun nga nekk si tali bi lu yàgg-yàgg te doo sentir na yaa ngi pour dernier oto bi ñi ngi am Hyundai Sonata ma leen di ñaan juste ngeen abonné suñu chaîne commenté liké ñu bëri mën a jot ci vidéo bi. pour modèle 2016 bi ñu ngi koy jëndee 4 millions 900 ba Sénégal. moteur bi 1.7 la mais du consommé bu ngeen gisee ñu bëri di ko def taxi ndax oto bi du consommé te moteur bi dafa dëgër kon boo ko yoroon ci autoroute bi di dem Tamba wala Casamance bul jaaxle du am benn problème. pour wane ne oto bi dafa am doole ci 6 secondes mun na jógee 0 ba 100 à l'heure ma lay fàttali objectif bu vidéo juste c'est pour éduquer et partager le peu de bi ñu am biir Corée du Sud ak suñuy service boo déposé xaalis bi tey la même jour wala le lendemain ñu ne la oto bi chargé ko le même jour tamit oto bi ñu lay jëndal du nekk oto parking yaa koy tànnal sa bopp ñu jëndal la ko boole la ak ñu la ko dédouaneel